laa ñëw di bëgg a waxal wax naa léegi ci Ablaye Wade ak Macky Sall rapprochement bi ndax ku am na intéret maintenant dafa am ñetti politiciens yuy jàkkaarlook ñoom mooy Idrissa mooy xalifa Sall mooy Ousmane Sonko. actuellement nii ñoom ñetti ils ont intérêt à ce que ñu ànd politique dafay changer dafay changé ñoom ñett laa wax ils ont intérêt à ce ñu ànd. pour mën a jàkkaarloo ak la machine bii nga xamante ne bii mi ngi waaj a construire ku ci nekk day def jàngat ci politique waay man li may ñaan mooy Idrissa Ousmane Sonko xalifa sàll ñu ànd waay bu àndee danañ mën a contrecarrer lii nga xamante ne bi commencé nañ ko di ko jouer entre Macky Sall ak Ablaye Wade te ku ci nekk nag wàññi sa ego xam naa ne li may waxati waa Sonko yi <laughs> dañ jógati di wax eh, da ngaa soxor da ngaa iñaan waxuma dara bii paa de xanaa waxuma dara Ousmane Sonko ah <laughs> bii paa waaw noonu la noonu la tey day am ñu d'accord ak man ñi d'accordul woon ak man bi passé dinañ d'accord ak man tey c'est normal mais bu ngeen dee def analyse politique xam nga politique dafay changer don yi day changer kenn xalaatul woon ne Ablaye Wade ak Macky Sall seen wax ji wax ji dina dem ba yóbbee leen ñu nekk ci benn mbir hmm? kon actuellement ni ñoom seen mbir mañ nekk seen deal bañ nekk entre Macky Sall ak Ablaye Wade di ko togg ngir kenn ku ci nekk am sa intérêt ñun ñi nga xam ne ñooy peuple bi nekk à côté tamit pour contrecarrer loolu il faut Idrissa Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ñu ànd man t-shirt laa ñëwee ñeme ñëwuma t-shirtu kenn man je suis de impasse jëf ak waxuma ci turu kenn sama analyse bi ma gis laay wax imagine leen tey Idrissa Ousmane Sonko xalifa Sall ñu ànd calculer leen ci seen xel rek dégloo leen ma xel imagine leen Idrissa Seck jamono ji ñuy wax ak yéen 75 pour cent électorat Touba ak Thiès moo ko moom dégg ngeen wax bi jamono ji ñuy wax ak yéen 75 pour cent électorat Touba ak électorat wu Thiès Idrissa moo ko moom. Khalifa Sall su génnoon tey ba taxaw dëgg moom moom élection Dakar wala am na fa doole ju bare bare bare Ousmane Sonko moomoom ci sud bi ak 50 pour cent ci diaspora bi waaw mais loolu suñ ko boolee. mais dañ fiy jële ñee dañ fi jële ñee dañ leen fi jële ku ci jéem a singulariser wu nag def sa bopp solitaire tu perds ñoom ñëpp laa wax ñoom ñëpp laa wax ku ci singulariser wu rek tu perds lu leer leer laa leen wax dama ne Idrissa Ousmane Sonko xalifa sàll ñooy ñett ñi nga xamante ne bi ñoo war a ànd pour contre contrecarrer la machine bi nga xam ne Macky Sall ak Abdoulaye Wade décla déclenché nañ ko ku ci singularisé wu ci ñooñu tu perds maa leen ko wax ak koo mën a doon il faut ñu mën a wàcce suñuy égo dem nañ fi élection législative Idrissa Seck dafa nekkoon deuxième mu Khalifa Sall non topp ci moom schéma bi ma leen di waaj jox nag schéma la boo xamante ne bii xel mu rëy moo koy mën a dékku schéma bi laa leen wax non Karim Wade moom candidature am man waxuma ko wax fa dëgg yàlla karimis yi nag ñi ma ñi si doonoon samay xarit dinañ ma mere mais man moom calculé wu ma candidature Karim Wade calculé ko parce que Karim Wade nekkul Sénégal Karim Wade avenir ci moom ci loxo yi ñeneen la dépendre kon kooku du ab candidat kon sëñ bi bu leen ma wax man waxu Karim parce que Karim Wade man man waxuma waxam waxuma waxam moom il a les dañ ko tënk mënta bouger fa mu nekk kon kooku mënta mënuñoo wax ci moom waaw mënuñoo wax ci moom dañ koo tënk il a les mains ki ñu war a waxal ñi ñu war a waxal Idrissa Seck loo ko bañ bañ bañ élection présidentielle yi moo jël deuxième Ousmane ko moo jël troisième Khalifa Sall am na doole mais mi ngi woon ci kaso bi am na doole xaj na dakaar te mi ngi woon ci kaso bi kon bés bu génnoon tey ànd ak Idrissa Seck ak Ousmane Sonko jàpp naa ne war nañoo mën a taxaw am une force politique bu dëgër bu fi mën a jëlee Macky Sall 2024 ak ku mën a àndal ak ku mën a àndal su fekkee deal bi dafa nekk ci ñu jéem a fexe ba juboo indiwaat jàmmoo ci dëkk bi pour que Macky buy dem ñu fexe ba amnistie bala moo dem mu fexe ba amnistie Karim bu fekkee loolu la Ablaye Wade di wut ci mbir mi seen deal la ñoom pour contre contrecarrer deal boobu il faut que Idrissa Ousmane Sonko xalifa Sall ñu mën a booloo buñ booloowee ñu gañe buñ booloowee gañe sud bi Ousmane Sonko moo ko gañe di ba pare am na 50 pour cent ci électorat bi ci bitim réew oui PDS ñàkk na lam amoon Ablaye Wade li mu def ci élection yi ak nit ñi ni ñu bañee Macky Sall moo tax ma ne leen PDS moom pare na Touba na ngeen ko xam pare na fo PDS mënatul gañe Touba mënatu koo gañe laa leen wax Ablaye Wade li mu def ci élection yi ak Macky Sall xañ nit ñi un deuxième tour bu leer ma ne leen PDS pare na Touba Ablaye Wade loolu lay jéem a reconquérir mais pare na Touba électorat ba Touba mi ngi ci loxoy Idrissa Seck am na électorat wu tuuba am na électorat wu Thiès kon kooku poids politique la Ousmane Sonko am na électorat Ziguinchor euh, bu Casamance bi am cinquante pour cent ci diaspora bi loolu poids politique la xalifa Sall ñëw ànd ak ñoom suñu booloowee on a un trio de choc un trio de feu boo xam ne xajuñu ci kaw ñee loolu mooy analyse ba loolu rekk la ñi am xel nag laay waxal waxuma ñi nga xam ne dañuy encagoulé wu man duma wax ak ku encagoulé man ku deful sa photo du ma la tontu ku bind beneen tur bu dul yow du ma la tontu parce que du yow damay jàpp ne du yow gis nga nit boo amee jom wala nga am fulla wala nga am fayda da ngay identifié wu li ngay wax nga wane ko man loolu laay gëm ci nit man gëwma nit koo xam ne dangaa def fausse identité man gëwma loolu bañ naa ko sax du leen tontu du ma leen tontu ki nga xam ne dangaa def fausse identité du ma la tontu man ki may tontu ak ki ma ëppal solo amal njariñ mooy ki nga xam ne def na photoom ma xam ne yow la ñu discuter ñun ñaar ñu wax mais bu leen tontu nit ñi nga xamante ne bii ay nitu kii lañ waaw ay nit yoo xamante ne bi li ñuy wax xamuñu ko waaw bu leen tontu aussi APR yi nga xam ne dañuy jéem a jaxase Ousmane Sonko naan waaw nitu système bi la si critiqué woon naa ko critiqué woon naa ko ci wàllu ànd gu mu àndoon ak Ablaye Wade c'est rek critiqué woon na Ousmane Sonko ci loolu ne da ne ne il n'est pas cohérent dans ça te l'histoire m'a jox na ma dëgg ci loolu kon yéen ñii yéen waa kër Sonko hmm, di wax di wax l'histoire m'a donné raison naa ko bu mu ànd ak góor gi góor gi fi toll bàyyi na ko dem ànd jëg Macky Sall kon histoire jox na ma raison kon incohérence yooyu ak erreur politique yooyu ñu ngi ñaan bu mu ko defati c'est vrai def na erreur def na erreur bu leer nañ ñi kañ def na erreur mais bañu ma man Ousmane Sonko jeune la te ñëppay def erreur Ablaye Wade def na pas mal d' erreur laataa muy jël nguur gi Idrissa Seck mi ngi nii def na pas mal d' te ba léegi mi ngi nii di xeex donc Ousmane Sonko ko mu def erreur da koy rectifier mais erreur la woon dem di ànd ji ak Ablaye Wade erreur la woon di wax Ablaye Wade est un patriote erreur la woon parce que erreur boobu moo koy wonaat tay ne ko gis nga politique ni mu demee ànd nga ak Ablaye Wade hmm? ànd nga ak Ablaye Wade dem ci moom wax ak moom élection lii naa Ablaye Wade sa damp mi ngi nii léegi wàcc na la ànd naag sa pire ennemi ànd naag sa pire ennemi mooy kon biñ koy wax ne ko moytul Ablaye Wade mais boobu la ko waroon moytu mais il faut rectifier le tir ñu xam ne enjeu yi bu changé nit ñi dañuy changé man je me situe pas en fonction des politiques je me situe en fonction des événements il faut ngeen comprendre ma nekkul ne parce que critiqué woon naa Ousmane Sonko rek tey damay koy critiqué déedéet Ousmane Sonko actuellement comme bam bi dafa changé moom it dafa war a changé dafa war a ñëw mu ànd ak Idrissa Seck ak Khalifa Sall pour ñu am une force noonu la mbir mi di deme mais si Makhtar mais noonu la war a demee xam nga wax naa ko fi temps yële mat na un mois et demi xaw ma woon ne sax Ablaye Wade ak Macky Sall danañ juboo xaw ma ko woon sax yàlla xam na ne ma ko woon mais bindaloon naa leen fi ñetti photo def photo Idrissa jàkkaarloo Khalifa Ousmane Sonko seen rakk nekk ci suuf ma ne leen trio bii de actuellement mooy force bu dëgër bi war a mën a téye Sénégal parce que jàngat naa ko calculer naa ko calculer naa ne ñoom ñett bu ñu booloowee wallahi azim doole ji ñu yor xajunu ci ñee mais ndax danañ ko def ndax am nañ xol yi ndax am nañ xol wàcce suñu ay doole ñun ñëpp kenn ku ci nekk sa égo sa rëy ngir mën a bokk une force bu fi jëlee ñii le plus rapidement possible ndax élection local yi saa yi ñeme na ko yóbbu 2022 de. élection locale yi ngeen di wax nii ak dialogue bi na ngeen xam ne Macky Sall ñeme na ko yóbbu mil 2022. élection député yi ñeme na koo couplé ak présidentielle 2024 day yokk mandat député yi 2 ans couplé ko lu leer laa leen wax loolu lépp man Macky Sall ñeme na ko. kon pour mu ñu am une force politique bu dëgër bañ di jàmmaarloo ci sunu biir. li may digal Ousmane Sonko mooy mu ànd ak Idrissa Seck ak Khalifa Sall ñu am doole ak suñu frère Barthélemy Dias ñoo ngi koy woo moom it ñoo ngi koy woo analyser leen li ma leen wax mbokk yi bu baax man li ma leen wax du affaire partisan de analyser leen bu baax li ma leen wax du affaire partisan mbir bu xewee c'est en fonction de ça ci ngay mën a adapté wu il faut liveurs yi yéen tamit seen discours yi ngeen adapté ko léegi mbir bu changé da ngeen di adapté wu ci mbir ma mbir changé na ci réew mi il faut ngeen adapté wu nit ñi adapté woo mooy ah comme damier la politique damier la da ngay roof pion kii di roof pion am nay jamono Ablaye doon roof ak Idri am nay jamono Macky di roof ak Ablaye am nay jamono Sonko di roof ak Ablaye changé waat na actuellement Ablaye mi ngi roof moog Macky donc Ousmane na dame daal di génn ñëw ànd ak Idrissa ak xalifa ñu jàkkaarloog ñoom mbir mi noonu lay demee noonu lay deme leneen lu fi waay def wala nga yaakaar ne yow rek la mën ngaa beru ne wallahi tu perds te ñënew ma kenn nag mu perte su ma sañoon opposition bi ñu am doole pour man fay jële lii waaw mais beru ne moom amul solo waaw loolu daal mooy conseil yi nga xamante ne bii man bëggoon naa leen ko jox ñoom ñëpp di wax ne encore une fois euh, les dés sont jetés li ci des nag spéculation la ay Cheikh Yérim Seck nee na ah Idrissa ngi wax ak Macky yooyu c'est de la spéculation loolu moom spéculation politique yàgg na ci réew mi amul solo hmm? ñi ci des nag boole ci dañ koy def genre recoupement surtout politiciens yi hmm? les détracteurs ak yooyu dañ koy def recoupement séquence bi nga xam ne ci la kii di waxee naan ah man de jàpp naa ne li tax tekkaaral gi mi ngi wax ak diw loolu xalaatam la wax man jàppuma loolu par exemple man jàppuma loolu jàppuma loolu jàppuma ko gëwuma ko sax fan gëmuma ko waaw ñi si des ñëpp nag Cheikh Yérim Seck Moustapha Diop ak Pape Alé Niang keneen ak keneen a ci yam journaliste yi ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk sa xalaat dong ngay wax mën naa nekk dëgg ko mën naa bañ a nekk dëgg supposition ngay wax waaw spéculation nag yàgg na nit ñi dañuy spéculer rek xam nga tekkaaral bu am xam nga Idrissa tekkaaralam gi day bëgg a yàgg te tekkaaralam gi tekkaaralu nit ku prudent la nit ku sage la bu fekkee nekk nga ci réew moo xam ne foqati nañ ko ci say loxo mënoo ci dara waa ji mooy gouverner mënoo ci dara xamagoo élection locale kañ la xamago élection euh, législative kañ la xamagoo dialogue bi nu muy demee am na beneen don bu changé Ablaye Wade ñëw na léegi ànd ak président bi mais dangay ngay def ndànk da ngay teey moo tax Idrissa a été très sage a été très parce que wax bu bari boo ko defee dañ lay juumloo te loolu moo juumloo ñenn ñi Idrissa a été prudent prudent mooy tekkaaral gi mu ne tekkaaral waraat na leen beneen schéma politique xam nga am na su fekkonte ne bi teel naa génn di prononcé wu lu baree bari mën na xew kon il a été prudent Idrissa dama koy féliciter ci loolu di ko encourager encore une fois ci homme d'état gi mu doon parce que homme d'état il faut nga xarañ il faut nga prudent wax bu bari yóbbuwu la fenn tallax tallax yóbbuwu la fenn da ngay def ndànk di analyser les enjeux da ngay def ndànk di analyser lii xew mooy mën a tax nga xam fooy teg sa tànk waaw mais génn di wax di waxte li ngay wax xam maîtriser woo ko baaxut parce que dañ lay juumloo dañ lay juumloo ku fi taxaw ne Ablaye Wade c'est un vrai patriote tagg ko fi gërëm ko nii Ablaye Wade du mu ngi ni war nañu ñun ñëpp dem na àndi yéeg Macky tax dafa baax teey dafa baax teey dafa baax dafa am solo moo tax nit ñi nañ def ndànk gis nga réewu Sénégal gii prudence ak teg ay jéego ndànk yu sûr yu wóor moom mooy nga yegg fi nga jëm mais du parax parax de du dem place de l'obélisque du jëli micro di yuuxu déedéet parce que am na yeneen dessous yu ne ci suuf waaw kon nag loolu rekk la euh, ñu ngi leen di sant bu baax yéen ñëpp di leen wax nañ sama analyse la koo xamante ne bi defoon nañ ko tey euh, euh, di kontaan bu baax ci retrouvé waat leen bëgguñu woon a génn ndax dañ ne woon fii ba après màggal waaye nag li ma leen yàgg a wax rek jeune ne me pas en fonction des hommes politiques je me situe en fonction des événements man dépendre ma ci homme politique yi man ci événement yi lay dépendre te événement bu bees amoon na mooy une nouvelle donne génn na une configuration bu bees génn na gaañ yi damee nañ pion yi Wade dem na donc il fallait que ñu génn ñu analyser ko partager ko ak yéen yéen tamit ngeen boole ko seen ay xalaat ngeen xool li nga xam ne wax naa leen ko mu convaincre leen ak li nga xam ne convaincre leen bu boobaa di ngeen di ngeen mën a jël seen propre décision ngeen def li nga xamante ne bi moom la la seen xel moom la la seen xel may waaw ñu ngi kontaan ci ñëpp macha allah di leen ziyaara di di kontaan waaw euh, loolu rek la euh, Félix nee na ma tu as critiqué Sonko et Barth oui oui si critiqué naa leen ah aw ma du ñoom ñi ngi def aw ma raison Félix Félix bu bu garaawul nañ sotti si ñu sotti ci mbir mi ndox rek Félix critiqué woon na xam am naa ci yoon raison oui am naa ci raison ci Sonko am naa ko ci Barthélémy Dias moom ñi demoon si Ablaye Wade Ablaye Wade war na leen tey waxoon nañ leen ko kon kay critique yi ñu doon critiqué dëgg la c'est pas faux mais jamono loolu passé na évacué nañ ko li ñu soxla léegi mooy dynamique boo xam ne comme données yi dafa changé nañ changé ñun tamit nañ changé mooy nañ jéem a fexe Idrissa ànd ak Sonko ànd ak seen machine di huiler ñuy togg ñoom tamit bàyyi ñële di togg politique noonu la man politique laa jàng de mbokk yi li may wax nii dama koo jàng nekkul na dama koy waxantu nii politique dañuy togg jamono jii Macky sàll ak Abdoulaye wax dangi togg Ousmane Sonko na ñëw ànd ak frère am Idrissa ak Khalifa Sall ñoom tamit ñoom ñett ñuy togg ànd ak ñeneen ñuy togg bu ko defee di préparer loo xam ne bu ñee yàkkee ñiy yàq noonu la loolu rek la voilà loolu rek la jërëjëf One Love bëgg nañ leen yéen ñëpp di kontaan ci yéen di leen ziara di nuyu ñëpp ah waa relais digital MPS Jëf ak Njariñ suñu xarit yi yéen ñi ñëpp di dugg si yéen ñëpp ah ñu ngi leen di bëgge bu baax waaw ah, di leen ñaanal yàlla tawféex ak siir eh, xam nga snop ASZ ah, snop na bi xaw ma yaay kan moo tax man duma dugal ci sama live nit bu ma xamul a AS sunop nabi laa wax man boo bëggee di dugg sama live da ngay identifié wu def sa photo def sa tur ñu xam ne yow la diw nga dugg mais man du ma dugal un inconnu ñuy nekk fii di def yu kenn xamul non non loolu rek la Baara Ndiaye bëgg nañ la waaw di nuyu waa Europol système ñëpp waaw ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp leen ziar mais man du ma dugal un inconnu snop euh, sopp na bi xaw ma sopp na bi du dugal ku ma xamut man ci sama live aw ma bi sax donc il faut man ku bëgg ma dugal la wala nga bëgg a wax ak man dangay ware sa kanam ñu xam ne yow la diw bu ko defee man ma mën a adressé wu directement ci yow mais ku dugalul sa photo lu dul di waxantu nii du ma dugal ci kii ngay nekk fi di saboté ak di saaga man ma am temps boobu boobu temps quand même hmm? loolu rek la voilà voilà voilà jërë ngeen jëf ñu ngi leen di bëggee woon love leen ñaanal yàlla feex ak taysiir leen wax bon dimanche jër ngeen jëf